والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين dañuy bàyyi suñu docteur suñu cheikh Mouhamed Ahmed Lo mu nuyu leen bu ko defee rek waxtu wi dafa xat lool ñu daal di dugg ci laaj yi daal di bàyyi mu tontu ñu ñaan yàlla mu may ñu istifaare wu ci comme yéen a laaj seeni laaj da ngeen di déglu seeni tontu. laaj nag ka ko laaj mun na cee jànge ka ko laaj it mun cee jànge parce que laaj ak tontu it ci xam-xam lay dugg kon ñu teewlu xam ni waxtu lu cher la ñu daal di bàyyi xel bu baax laaj yi kon ñu jox ko kàddu gi mu nuyoo ak yéen bi iznillah bismillahi rahmani rahim inna alhamdulilahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruh wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah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 waaye it yéen a ngi jox seen diine cëram loolu nag mooy li war ab jullit jullit bi amul choix ci lépp loo xam ne dafa aju ci jàng ci wàllu diineem lu mën a nekk lu nekk ci àdduna war na caa boole jàng diineem ak xam ko ak dund ko itam loolu moo tax dafa jaadu ñu xam ne jullit bi rawatina jullit bi jigéen bi lu aju ci diineem muy jaamu yàlla ak jéem koo xam ak jëfe ko ak dund ko ci pas-pasam ak ci jaamu yàllaam ak ci jikkoom même ba ci comportement yooyu yëpp amu ci choix day loo xam ne moo jël engagement ne ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah kon lii siiw ci làmmiñi doomu aadama yi ñu naan jullit boo xam ne pratiquant la ak ku nekkul pratiquant loolu amut jullit yépp ay pratiquant la war a nekk loolu moo tax warul mën a nekk am benn jigéen boo xam ne jullit la nga dajeeg moom te doo gis ci moom comportement bi nga xam ne moom la alxuraan santaane surtout loo xam ne dafa aju ci wàllu colaayam col mi ko lislaam sant en tant que jullit mu jël engagement ne jullit laa foo dajeeg moom ku nekk col moom moo war a nekk ci kaw yaramam loolu mooy li lay jëkk a wax ne kii ab jullit la su ko defee rek leneen lu cay tegu ci pas-pasam ak ay jikkoom ak ay jëflenteem loola door a feeñ waaye bët bi bu tegee ci moom rek war ngaa xam ne kii jullit la léegi nag dañuy dem ci ay société ba gis njaxas li ak yi réeral doomu aadama yi ak yi leen di gëlëmal jaawaloo ba nga mën a gis góor góoru jullit wala jigéeni jullit doo mën a xam ci kaw gis gi nga ko gis ne kii jullit la xanaa bu loola weesoo bu ngeen waxtaanee rek mu door ne la man jullit laa nga door a xam ne kooku jullit la loola moom jaaduwul kon jullit yi nañ gën a jéem a góorgóorlu ci seen diine ak ay santaaneem bàyyi lépp loo xam ne xeeti tereem la di del si da leen félicité waat ginnaaw waxtu bi dafa gàtt bëgguma sori ci wet googu waaye ab ndénkaan la bu ma doon tàmbalee xëy na ci biir question yi da am lu ko mën a xóotal insha allah ñu telloo kàddu gi Mouhamed. tey léegi doxalin bi ci laaj yi maanaam niñ ko naree doxale bi isnillah waaw mooy dañ koy limal lu toll ci juróomi laaj mu jëru ko ñu jox ko kàddu mu tontu ñu waajalaat yeneen i laaj loolu moo gën a jàppandi insha allah. bari na nag li yëpp mooma mais dañ ciy jël ba nga ni day na bismillah <laughs> fadilatu cheikh li ñu njëkk a am ci ci laaj mooy ñu leeral ni li ci ëpp laaju jigéen la daanaka laaju jigéen dong nga fi rat ak ay yenn yenn ci wàllu aqida te ñu ñar koo jukki bi ci jiitu mooy ci wàllu julli kii de laaj na ndax mënees nañoo julli ci biir église loolu mooy laaj bu njëkk bi alhamdulilah allahuma la ilma la illa ma allamtana kon ñu tàmbalee ci laaj bu njëkk bi insha allah mooy julli ci biir église euh, loolu am na ñaari maana mooy ndax dañoo jublu ne place bi ñuy jullee dafa nekkoon église ñu soppi ko léegi nekkatul église ñu di fa julli donte tabax baa nga fa waaye tuddatul église tudd na jàkka ci misaal ndax loolu bari na lool ci réewu Europe yi nga dem gis église boo xam ne dañ koy jaay te jullit jënd ko defaraate tuuti rek mu daa di nekk jàkka ñi daal di commencé di julli foofu lu mel noonu borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne moom mënees na caa julli wàññiwul dara ci kaw ne église la woon rek du tee ñu di fa julli am naa nag bu fekkee ne mm, julli lislaam gi mu santaane ci jëmmi boppam euh, boo xam ne dañ koo jagleel di fa julli geneenu julli gu bokkul a goog lislaam wala ñu di fa jaamu yàlla geneen jaamu yàlla gudul goog lislaam kooku dañuy tere jullit ba mu ñëw di ko fa di fa def ak jaamu am donte place yi ci kaw suuf yépp place jullikaay la waaye yooyu moom dañ ko cee settee ndax place boo xam ne dañ fa doon mooy yàlla sax jullit bi dañ koy digal bu dee topp yàlla mu seet beneen place bu bokkut ak booba am na saxaabi bu màgg boo xam ne dafa ñëw tàggu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man dey dama nisaroon maanaam damaa jëloon décision daal ne dana rey genn gëléem jaamoo ko yàlla ci benn béréb bu ñuy wax bawaana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax bawaana googu daa mas a am ay xiram wala ay xamb wala yu mel noonu yuñ fa daan def di ko fa ja di fa jaamu leneen lu dul yàlla mu ne ko déedéet mu ne ko kon mën nga ko rey foofa la nga cay déggee mooy kon su fekkoon ne béréb la bu ñu doon jaamoo leneen lu dul yàlla wala ñu di fa def loo xam ne lu wuutee diine lislaam la kon doo ko fa mën a def kon daal jullit bi moom euh, tànn luñ ko muy julli ci béréb boo xam ne bokkut ak béréb bi euh, euh, lislaam tër ñu war faa jullee te bokk na ci foo xam ne lañ koy def dafay juyoo ak diine lislaam ñaareelub laaj mu ne ki nga xamante ni bi muy commencé julli dafa fàtte takbir bu jiitu ba ndax day tàmbaliwaat julleen ki nga xam ne dafay julli dugg ci biir julli gi fàtte kabaru armal loolu jullit bi ala kulli xaal fàtte moom fàtte la tudd waaye jullit bi li muy jëkk a def ci julli mooy kàbbaru armal kon kooku waroon naa fexe ba du ko fàtte fàtte ko day xaw a nuru feetu càggante wala yàkkam ci te yaar yooyu lenn waru ci am ci julli kii dugg ci julli ànd akuk dal jublu boroomam war naa ànd ak dal goo xam ne dana tax du yàkkam war naa ànd ak daluk xel goo xam ne du tax mu fàtte lii du fàtte li nga xam ne mooy li jëkk ci julli muy kàbbaru armal waaye su fekkoon ne loolu am na yit nag mu dugg ci biir julli gi soreegul fàtte ne dafa kàbbarut kàbbaru armal kooku moom dafay daal di dagg julli ba fa mu toll rek kàbbarat kàbbaru armal su fekkee daa continuer julli noonu nag ba ak julleem cate maanaam ba muy bëgg a jeex wala ba julleem jeex sax boroom xam-xam yi foofu ñaari kuréel lañ am na ñoo xam ne dañ ne daf koy sujjóotal Euh, sujootu ba'da salaam wala qabla salaam la ci nekk wax nañ ko am na ci ñoo xam ne dañ na ala kulli xaal julli ga moom day yàqu day tàmbaliwaat julli donte dem na ba sëlmal ba noppi sax day jóg julliwaat waaye mënee ko sujootal te loolu wax ju dëgër la ndax kàbbaru armal dafa bokk ci ponk ci julli waaye bokkul ci ay sartam رفع اليدين في في تكبير الأحمر waaw ala kulli xaal daf ci laajaale mu ne ndax su fekkee kàbbaru armal bi moom fàttewu ko maanaam wax na allahu akbar waaye ay loxoom rek la yëkkatiwut kooku moom amul benn jeexit du lu ñuy sujootal du lu ñu yàq julli ñu xam ne kàbbaru armal bu ñu koy wax mooy allahu akbar ji ngay njëkk a wax ci julli allahu akbar jooju nag dafa war a ànd ak yëkkati loxo ba mu tolloog say nopp su fekkee wax na allahu akbar ji waaye ay loxoom la wul ko kooku yàqul dara waaye nag allahu akbar ja su dikkul moom même su yëkkati woon ay loxoom sax kon itam amul kabaru armal loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ci wàllu jigéen mu ne ndax islaam may na jigéenu jullit muy dawal oto amma conduire euh, oto ci jigéen dafa doon loo xam ne euh, faaw xool société bi nit ki laaja laaj bi am na ay société yoo xam ne boo fa laajee loolu dañ lay wax ne mënut a nekk ndax am na lu tax waaye ku mel ne suñ société bii man dama jàpp ne jigéen ju mën a am sax oto dugg ci otoom di ko contrôle boppam di dem ak a ñëw loolu moo gën a dëppoog l'islam ci transport public bi nga xam ne moom la ñuy teg bët ci kaw nag mu bañ a def oto bi moyen boo xam ne daf ciy tukki ay tukki yu sori ndax jigéen itam xam ngeen lu ko fitnaal dafa yomb te eh, ñi nga xam ne dañoo sàggan dañoo bari moo tax soppuñu même bu jigéen yoroon otoom di tukki muy tukki tukki yu sori yoo xam ne otoom mën naa kërwe ci yoon wi mu nekk fa moom dong mën naa am problème boo xam ne moom rek moo nekk ci àll bi amul benn kaaraange te ku ko seen yàpp ko lu mel noonu itam lu mat a bàyyi xel ci tukki yu sori yooyu waaye jàpp naa ne daal ci biir dëkk bi ñuy dem ak ñëw moom jaxasoo gi nga xam ne góor ñi jigéen ñi moom la ñuy jaxasoo ci biir transport public bi su demoon ba jigéen mën a yor oto boppam boo xam ne day génn ci këram ndànk dawal otoom ba ca liggéeyukaayam mu liggéey bu wàccee dellusiwaat du jaxasoo kenn su boobaa loolu mooy gën a dëppoog lislaam ci leneen lu dul loolu. ñetteelu laaj mu ne yan àq ñooy àq jullit bu jigéen. leeralul dafa boyal <laughs> dafa ni quels les droits. de des jeunes femmes musulmanes maanaam jigéenu jullit li àqam ay uquuqa maanaam ay droitam noonu la ko laajee euh, mbokk mi laaj àqi ndaw loo xam ne dafa nekk jullit àqam maanaam àq bu ñu ko waxee mooy droit mooy loo xam ne dañ ko ko yoreel war ko ko jox àq ji ci jiitu mooy àq yi ji ko waajuram yoreel ba ci jiitu mooy war na ko tudde tudd turu rafet bi ci tegu mooy war na koo jàngal su demee ba mën a wax mu jàngal ko kàddug laa ilaha illallah muhammad rasulullah wala ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu na ko yar ko bépp yar boo xam ne dañ koy yar ngir mu baax ci wàllu yaramam colom ak lekkam ak naanam ak dëkkukaayam waaye yoreel na ko nag yar ko ci lislaam itam nag yorub lislaam en tant que ab jullit boo xam ne dafa judd ci keppaarub jullit war nañ koo jàngal corum jullit nan lay mel jullit nan lay waxe jullit lan mooy diineem luy pas-pasam jàngal ko julli jàngal ko alquran bu ko mënee yóbbu ci daara mu mokkal alquran sax mu def ko kon loolu ay àq la yoo xam ne doom ji bàyyi ma ko ko yoreel su ko ko defalul nag ba màgg bépp ndëngte boo xam ne ñëw na ci moom wala ñàkk a jub wala ñàkk jaar ci salaatul mustaqim boo xam ne gaar na ko dëgg la mën na nekk bàkkaar ci ndaw lool yi waaye baayam bi ko yoree loon ak yooyu te taxawut ca loola wala ma ne waajuram ya sax ñoom itam danañ ci am seen wàll kon loolu moo tax ndaw dañoo war a góorgóorlu ci yar ko ak jàngal ko ak teg ko ci siraatul mustaqim ndax mu jub su jubee tuyaaba ji yow bi ko yaroon danga nga cay am te du wàññi dara ci mu war a am moom waaye boo ko defut ba mu am bàkkaar itam di ko dund bàkkaar boobu da nga cay am te du tax mu wàññi dara ci bàkkaaram moom itam kon loolu ay xam la yoo xam ne dañ ko ko war a defal ameel lañ ko xàq yi aar ko itam kaaraange ba keroog muy génn dem ci néegub sëy dem sëy loolu lépp ay waajuram ñoo ko ko yoreel su dee xasee dem ci néegub sëy nag àq yi nga xam ne moom lañ ko yoreel boroom këram moo ko ko yoreel war na koo yor ci gépp anam goo xam ne dañ ko yori jigéen ci dëkkuwaayam ak lekkuwaayam ak nam ak lépp loo xam ne jigéen da koy soxla jumal mel ne moom mu yoreel ko ko loolu xaq la boo xam ne dañ ko ko yoreel waaye bu boobaa nag moom it ay devoir day tàmbali nag di tege ci kawam am lu ko war moom it ci digganteem ak waajuram yooyu nga xam ne ñoo ko yaroon ba xëy jébbal ko borom këram war naa rafetal jëme ci waajuram kam kàttanam war naa rafetal jëme ci jëkkëram war nay dégg ay ndigalam war na koy tàggu war nay jëfleenteeg moom ci ñaari jullit ni ñuy jëflente di weccenteeg moom ay laayante biir su boobaa daal nekk na mag nag moo xam ne responsable la ci biir këram responsabilité yar ay njaboot day daal di juddu responsabilité sàmm alali jëkkëram ak sàmm këram yooyu yëpp day daal di juddu mu war cee taxaw taxawaay boo xam ne bu rafet la lu ci manqué bu boobaa dafay am bàkkaar comme ni nga xamee ne bu jëkkëram sàgganee ci côtéem ba am dara lu ci manqué moom itam dafay daal di am ci loolu bàkkaar noonu daal daanaka mooy gàttalu tontu boobu moom juróomi ñeenteelu laaj mu ne ndax muuru gi jigéen ji muuru parata la ndax moom dafa dégg ñu ne ko li waraloon muuru gi mooy jigéen ca njalbeen dañ koo fitnaaloon ci dëkk dëkk naar yeeg ni ñu mel mu ne ndax jamono jii ñu toll nag bu loolu amatul ndax muuru gi war la bu mu war jigéen bi. am naa li ñuy tudde nag muuraay muuraay bu ñu ko waxee rek. xel day daal di dem ci bopp euh, lu bare bari ci nit ñi dañuy yaakaar ne bu ñu ne muuraayu jigéen jigéen li ko war mooy bu xasee muur boppam rek jaanam dal nay wàcc maanaam def na li ko war moo tax léeg-léeg nga daje gone yoo xam ne dañuy sol ay pantalon yu xata xata xat ba noppi teg muuraay ci seen bopp ñu jàpp ne dañoo muuru ndax li ñu dégg xëy na ñu ne muuraay moo tax ñu defe ne muuraay moom bu xasee tegee ci bopp bi rek baax na waaye fekk na du noonu lislaam lim santaane ci colu jigéen gën naa yaatu li ñu tudde muuraay dafa am ñeenti condition yoo xam ne mënuñoo ñàkk ci col mi pour mu tudd corum lislaam bi ci jëkk mooy dafa war a jot lu jot buñ ko waxee mooy lu tàmbalee ci bopp bi ba ci suuf ba ci tànk yi dafa war a yaatu lu yaatu buñ ko waxee mooy loo xam ne nekkul di marqué cérier ba muy feeñ nekkul di marqué cérier ba muy feeñ kon dafa war a jot waaye dafa war a yaatu dafa war a fatt itam lu fatt buñ ko waxee mooy loo xam ne bu ñu ko solee la nekk ca biiram du feeñ leneen la ca tegu mooy col mi jigéen di génne warul a nekk mu rafet mu jéggi dayo moo xam ne day foy foy fu mu jaar rek ku ko xool da nga geesu xoolaat ko ñeenti charte yooyu su dajee ci am col moom lañuy ñuy tudde colum lislaam col moomu nag borom bi tabaraka wa taala dafa digal yonent bi di ko yaa ayuha nabi yow qul waxal li azwaajika waxal sa soxna wa banaatika ak sa doom yi wa nisaa'il mu'miniin ak soxna yi mboolem jullit yi gëm yàlla nee leen nañ muuru yudniina alayhinna min jalaabibihinna nee leen nañ muuru muuraa yoo xam ne day tàmbalee ca seen bopp ya ba ca suuf kon ndigal loolu ñu xam ne du ndigal loo xam ne yonent baa ko jagoo wala ay soxnaama ko jago wala ay doomam li azwaajika wa banaatika kaw nisaa'il mu'miniin say soxna ak sa doom yu jigéen ak soxnay jullit yi ak seen doom yu jigéen ñoom itam kon bépp jigéenu jullit moom lañ digal mu sol colum lislaam bépp jigéenu jullit moom lañ digal mu sol colum lislaam am maa nag ndax fitna daa bari woon ca société arabe yi moo taxoon yàlla digle ñu muuru dëgg la fitna bari woon na lool ci société arabe ya te loola ca la tax ju digal leen ñu muuru ci la waaye yaakaaruma ne fitna ya amoon ci société arabe ya dafa wàññiku léegi wàññiku wut dama jàpp ne sax dafa yokk ndax li am léegi ci col yu bon ak li am ci ay càggante ak li ngay dégg ci ay musiba yuy xew ci diggante góor ak jigéen léeg-léeg sax musiba yi dem bañ di ko tudd ci anam goo xam ne sax damay tiit yow mi koy déglu ñi lay wax ci diggante ñu jegee lool mag ak rak ndey ak baay ak doom tu lu nekk nga di ko dégg ci biir kooku man jàpp naa ne fitna yi am léegi moo gën a metti moo gën a rëy moo gën a jéggi dayo sax fitna yi amoon ci jamono yi ci jamono yooyu ñuy wax kon ndigalu sunu borom tabaraka wa taala lim digal nit doonut loo xam ne moom daf koy jariñ moom sunu borom waaye kim ko digal mu koy topp kooko moo ci jëriñu moo ci jëriñu digganteem ak boroomam ndax moo ci mucc ci sawara ndax fépp sànni saw yaram ci bit yi def yaram yaramu neen di dox di naa doomu aadama yi ñiy bàkkaaru nga di ca am ba keroog ngay faatu loola wóoru ci li mën a yóbbu nit sawara ci la bokk moo tax boroom xam-xam mu mag daa bind benn téere tudde ko alxijaabu awi naar maanaam mu ne ñaar yi rek a fi nekk muuru wala tàbbi sawara xëy na loolu tàng na lool sax waaye nag nit ki war naa am tiitaange ci wet gu teme noonu war naa am tiitaange ci jàpp ne su fekkee ne deful li ko boromam digal mën na cee tàbbi sawara kon muuraay ga moo ci jëkke jariñu moom mi mucc ci sawara nar caa tàbbee ajjana beneen bi ci des ndigalu sunu borom njariñ la ci société bi ndax fitne yi am su fekkoon ne ñépp kenn ko ne yem nga fa la sa diine yem loo kon fitne yi ñuy dégg kenn du ko kenn du ko dégg kenn du ko gis kon daal ndigal la loo xam ne pour baaxal société bi la pour laabal ko la pour jubal nit ñi la pour lépp tegu siraatul mustaqim ñu dem liggéeyi loolu moo tax lislaam jóg waaye lu dul loolu nag fit na rek mooy am te mooy li ñuy gis kon ñu xam ne ndigal la loo xam ne mboolem jullit yi jigéen yi lañ ko digal ci bépp jamono ndax bépp ndigalu lislaam bu ñëw jëm si ci góor wala ci jigéen wala mu jëm ci ñoom ñaar nañ xam ne loolu day continuer ba keroog àdduna di tukki amut fu ndax borom bi tabaraka wa taala ci bind nit ñi moo xam seeni i moo xam seen i doxalin moo xam liy beesaat ci société yi lan la kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax jazakumullahu xayran ahsan ilaykum ñu wéyaat ci laaj yi fadilatu cheikh kii mi ngi laajte mu ne su fekkente ni wér na ni islaam dafa bañ jigéen yëkkati kàddoom mu jëm kaw kon ndax jigéenu jullit war na mu ne ngéeju def liggéeyu journalisme maanaam ndax jigéen ci ci diine mun na nekk journaliste. alhamdulilah euh, kàddu jigéen kàddu jigéen bu fekkee kàddu lañ jubloo wax li wér mooy mooy du awra kàddu gi rek du awra jigéen dana wax l'islam permettre na ko muy wax ñuy dégg. waaye nag dañ ne na am nu muy waxe bu fekkee jigéeni jullit la dafa am nu ko lislaam wax ne buy wax na waxe nii mooy na wax wax joo xam ne wax ju fullawu la joo xam ne àndul ak ji jéem a damm sa baat wala nga koy jéem a soppi pour neexale ko doomu aadama yi kenn ku nekk na ne lii am ci journalisme bu fekkee jigéen ji wax lañ ci jublu parce que dafa laaj rek journalisme ndax journalisme yaatu na bu fekkee bind la ak yu mel noonu kenn nattabli wut ne moom jigéen mën naa nekk journaliste buy bind waaye nag bu fekkee wax la wala feeñ nag ci euh, euh, écran ñi koy seetaan wala yu mel noonu kooku lislaam xaw mu tegal ko nag ay sartam yoo xam ne noonu la bëgg jigéeni jullit mel ni jigéen su dee wax dañ koo digal mu wax wax joo xam ne ju naturel la ni ko yàlla binde noonu rek lay waxe du jéem a suufeel kàddoom di ko yëkkatiwaat wala mu koy damm ci wet gi di ko damm ca wet gële ndax loolu borom bi tabaraka wa taala li tax mu koy aaye mooy fitna lay andil ñi nga xam ne ñoo koy déglu kon jigéen dana wax waaye dafa am nu muy waxe ci lislaam amaa nag euh, li nga xam ne moom lañ siiwe ci moyens yi nga xam ne moom ci la jigéen di génn tey ñu di leen seetaan nekk journaliste di feeñ ci écran boole ko ak di wax liñ ci gis lépp lépp lu dëppoog lislaam moom nekku ci maanaam loolu moom xëy na mooy réalité moom la société yi di dund itam du ma wax rek société bii waaye li ëpp ci société yi doomu aadama yi tey ci kaw suuf loolu la ñuy dund ci ci famaa boobu ci kaw euh, lu aju ci wàllu journalisme moo xam ay xabaar la wala leneen liñ gis mooy jigéen na ko lislaam digaloon mu war naa mel ci comportement am war naa mel ci waxinam loolu bokkut ak ak li ñuy dund ci biir géew boobu kon jigéeni jullit yi faaw mu xam loolu kon waxuñu ne bunt la bu tëju carrément waaye nag dafa am condition yoo xam ne bu doon am loolu moo ci war a ànd na muy waxe war naa am na muy soloo war naa am noo xam ne nu nu nu lislaam nangu la kon duñu wax ne tëj nañ bunt boobu ba jigéen mënta nekk journaliste waaye am na nu mu koy doone noonu mu koy doone sax dama jàpp ne su fekkoon ne jigéen mën na sol col mi nga xam ne mooy mi jaadu dëgg dëgg dëgg di feeñ ci kanam écran jëmmi colom moomu mën na nekk daawa ci ñeneen sax ñoo xam ne daawuñu sol lu mel noonu ñu dem ba xalaat dugg ci sol loo xam ne lu mel noonu fekk ñooñu ñoo leen woo ca loola moo tax euh, lu bare bari ci tey ñoo xam ne dañuy sol coli fi ñu koy royee ci li ñuy seetaan ci écran bi lay doon mën naa doon ab journaliste boo xam ne dafay feeñ bu solee lii tey bu ëllëgee mu sollee bu ne tuuti nga gis waa mbedd mi tàmbali di sol lu mel noonu euh, wala ñi nga xam ne ñoo yor ay ay salon di def wàllu coiffure ñu publicité leen ci télévision bi ñu xool li ñuy def yu mel noonu su fekkoon ne ñi nga xam ne ñooy ñoo ñoo jëm ci wàllu muuru ak sol yére yi nga xam ne moom la leen lislaam sant war nañoo góorgóorlu ñoom it am publicité bu mel noonu boo xam ne dañuy gis ne kat ndekete muuru rek firiwul ne yow itam da ngaa bàyyi sa bopp rek daal di muuru noonu waaye mën ngaa defaru ba mel ni nga war a mel ba àggal bu génn jotee nag nga teg nag col moo xam ne lii mooy colum lislaam dëgg dëgg dëgg lu mel noonu war naa dugg ci xalaati doomu aadama yi ñu yëg ne muuru gi lu mel noonu la àndal àndul ak koo xam rek dafa bàyyi boppam lu ko neex boppam mel noonu rek daal di jël ab ab ab séet teg ko ci kawam pour làqtoo ko nit ñi bañ koo gis gëm ne du loolu ndax xalaat yu bëree bëri li ci nekk booy déglu nit ñi day mel ne loolu la day mel ne kay muuru moom amul soxla ci àdduna te fekk jotewuñ dara mën ngaa dund sa àdduna ni la ko sa borom sante ba noppi lim la sant ci sa col boo dee génn nga mel noonu lu mel noonu jaadu na ay salon am yoo xam ne ci wàllu publicité danañ xamal ne ah ñi ngeen di dajee ñuy muuru kat firiwul ne ñoom defaruñ seen bopp dëgg la fa ñuy defar seen bopp kenn du leen wane ci écran écran ñu di leen wane ni nii lañ ko doon létteeg nii lañ ko doon defee yu mel noonu loolu lislaam nangu waaye nag su defaroo bay génn ñi wane muuraay bi mu def ñi xam ne kii muuraay bi mu def dafa defar boppam ba àggal door a def muuraay bii lu mel noonu dana dugal ci xeli doomu aadama yi ñu xam ne ah ndekete ñi muuru kat ñoom it dañuy defal seen bopp ba noppi def li leen seen borom digal suñ ko joxee parole euh, occasion la pour mu daawa woote xam la ne defal sa bopp dàqontewut ak muuru su ko defee jéem a soppi mentalité bi nekk ci xeli doomu aadama yi bañ jàpp ne muuru ak euh, dund àdduna dafa dafa dafa mënta ànd mën nañoo ànd ci lépp loo xam ne lu l'islam bañut la kon yi fi nekk waxuñu ne nañ ko tëj waaye nañ ko islamisé moo xam journalisme la moo xam leneen la moo xam leneen la lu ci nekk dafa am yi ca nekk yu lislaam nanguwul ak yum nangu nañ jéem a fexe ba tërale ko ci anam goo xam ne mooy jii lislaam bëgg ñu wan ko nit ñi ne leen lii nag lu mën a nekk la su ko defee euh, lu bari ci dund gi dana soppi ko bu ci topp kii di laaj ndax islaam bu fekkee ni dafa tere ñu ñaanal koo xam ni di jullit bu faatoo ñu bañ koo ñaanal ndax nag dafa tere nag ñu bañ a nuyu jigéen bu muuruwul ndax daa bañ ñu nuyu jigéen gu gu muuruwul maanaam jigéenu jullit bu muuruwul ndax islaam dafa tere ñu ñu nuyu ko ndax jigéen ju muuruwul des na ko nuyu kay des na ko nuyu su fekkee ab jullit la euh, day rekk jullit bu sàggan waaye des na ko nuyu te càggante googu doonut loo xam ne day tax sax nit ki di ko xeet wala mu di ko doyadal wala mu di ko reetaan parce que gindiku itam nag a jaar ci siraatul mustaqim xéewalu sunu borom tabaraka wa taala la yow mi yàlla baaxe ba ngay muuru wala nga jël sa comportement di jéem a engagement di dund sa diine li ko yàlla santaane boo gisee sa moroomum jullit moo xam ne àggagul foofu li war a dox sa digganteeg moom yërmaande la borom bi tabaraka wa taala nee kuntum min qablu fa manna allahu alaykum nee na bu leen fàtte ne ñii ngeen di gis di leen xaw a yéen itam noonu ngeen meloon bu jëkk yàlla defal leen xéewal ba ngeen génn ci loola kon ginnaaw nga xam ne jullit bi bokk na ci liy confirmer lislaamam dëgg dëgg dëgg mooy lim bëggal boppam da koy bëggal mbokk jullitam yow mu yàlla baaxe ba ngay muuru di jiima dund sa diine gis sa mbokkum jullit moo xam ne wóor na ne ci jullit la waaye ak seegul foofu nga jéem a góorgóorlu jàppalanteeg moom jàpp ci loxoom yërëm ko wan ko yoone fi muy jaar ba ba muy agsi fi nga nekk mën naa dem ci diine ji sax baraw la bu ëllëgee ba di jàngal ci loolu waaye bu boobaa nga am tuyaa bay ne ci sa loxo ci la dugge woon ci sa diine te xadis bi cheikh aboubacar di ñu léegi muy xadis ali ibn abi talib bi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yebalee xaybar daf ne ko bu yàlla gindee ci sa loxo kenn nit moo gën ci yow àdduna ak li ci biiram àdduna ak li ci biiram kon saa boo xëyee yow jullit bi jéemal a góorgóorlu ba doonte benn laay biir la tax nga jëmalee ko sa mbokkum jullit amaana benn kàddu boobu nga koy wax rek mën na cee gindikoo neen mbokkam yi may nettali fan yi ci France la nekkoon euh, fa la nekk ba tey sax soxna soo xam ne ñoo bokk fu ñu doon liggéeyee ci UNESCO yàlla gindee ko ci loxoom ba muy muuru te nee na nee na loolu ko yàlla génnee ci xuloo sax la tàmbale woon far ne ndaw si daf ko romb sànni ko kàddu goo xam ne gu jaaduwut la ndax gis na ci moom comportement comportement jullit nee mu ne ko ah yow boo dul jullit itam man teg ma bàyyi sama diine moom ku góor ci mu tontu ko loolu ndaw si reetaan ko reetaan bu bu sew sew daal di dem yoonam te xamul ne moom kilifa la ci liggéeyukaay bi benn bés ñu jox ko benn dossier mu ñëw di ko indi ci bureau bi mu dikkee fekk muy moom bi mu ko defee li muy def ba àggal bi mu liggéeyee ba àggal mu ne ko ndax yaa ngi may fàttaliku ndaw si ne ko waaw man kay yow laa defoon ne fàttaliku woo ma mu laaj ko yow jullit nga mu ne ko waaw man jullit laa mu ne ko lu tax euh, ngay reetaan jullit boo xam ne comportement jullit la xanaa xamoon ne loolu bakkaar la mu ne ko xaw ma ko woon mu ubbi tiroiram jox ko benn livre boo xam livre français la bu Cheikh Abdourahmane Ibn Jibril ne ko boo ko liiree ba pare nga ñëw loo ci gis nga wax ma mu dem liir livre bi bi mu dikkee ne ko ah li muy wax de leer luñ mën a dégg la bi mu dikkee mu jox ko beneen seede boo xam ne ci wolof lay wax mu dem déglu ko bi mu dikkee ne ko ah ji wax de moom moo gën a leer moom laa gën a mën a dégg mu jox ko benn cassette boo xam ne ci muuraay lay wax nee na vendredi laa ko jox samedi dimanche lundi bi muy xëy si da ko muur kon Euh, loolu mooy li war a dox sa diggante ak sa mbokk jullit bi nga xam ne da ngay dund ak moom même su ubbee sa digganteeg moom wax joo xam ne ji ñagas la yow waxal wax ju nooy lu tax parce que yow yaa jàpp ne yow la yàlla gindi su fekkee da ngaa wàccaat ba tolloog moom ngeen di xuloo di werante kon gindi googu nga wax da ko wax rek waaye amut gindi gi la yàlla gindi ni mu war a feeñee ci sa col mi noonu lay feeñee ci sa jikko sa waxiin sa doxiin suñ la tooñee ban réaction nga war a def Eh, mbir mu demee noonu. beneenub laaj mu ne ndax jigéenu jullit am na sañ-sañu mureeku mu mu wanewu ci kanamu góor bu mu am yaakaar mu takk ko maanaam ci liy ñëw ci kanam ci mu am yéene sëyeeg moom ca kanam ndax mun naa mureeku ci kanamam. ndax jigéen ji sañ naa feeñal yaramam ci kanam góor goo xam ne dañoo waxante ba diggante ne daf koo war a takk sa tëkkagu kooku tontu li muy déedéet ndax kooku ab jàmbur la ci moom ba léegi comme ñëpp maanaam li ngeen di tudde fiance muy ñaar ñu labatante ba wax ne bëgg dañoo takkante te defaguñ loola ñu yëg ne loolu taxul nga mën a waxanteeg moom lenn lu dul li nga mën a wax ak jigéen ju nekk jàmbur moom it mun laa woon lenn ci ay cëram lu dul loo xam ne ab jaambur moom rek la mën a gis maanaam mënoo gis ci moom dara loo xam ne lu wuuteeg ñeneen jigéen ñi ci des la parce que moom ñi ci des ñëpp ñoo yem ci yow fi mu toll nii li feeg demuñu ba daje ñu ne fas nañ sëy bi diggante diw ak diw kilifa ga d'accord ca ñaari woy dencante yi d'accord ci jullit ya seede loolu maanaam ñu témoin li feeg loola amul góor gi jàmbur la jigéen ji jàmbur la kon suñuy waxante nañ xam frontière wax fan lay yem suñuy gisante dañ xam frontière gis fan la yem kon li ñuy wax naan ànd di génn nag ànd naa moom génn ñaari at ak ñetti at ak weer ak ñetti fan ak yooyu yépp bokkul ci lislaam lislaam amul génn lépp ci kër gi lañ ko waxtaane ba mu jeex bis bu doonee jabaram nag bu ko neexee na génn dem bu ko sopp waaye ab jàmbur kenn du ànd ak moom di génn jëm fenn mënta gis ci moom itam lenn. beneenub laaj mu ne lan la islam wax ci contrat de mariage. mu daal di ciy dolli ne cest à labat boo xamante ni day yàgg. yàggal labat loolu itam soppuñu ko lool dëgg la daggan na ñoom ñaa ñu def seen contrat ne dañuy jàng ba noppi door sëy wala dañuy def nangam moo xam ñu joxante ab délai ay weer ay at ñoo xam waaye dafay jaadu loolu li tax soppuñu ko mooy dafa jaadu ñu respecté ko ñu respecté ko ndax ku xas joxe sa kàddu kat. mënoo continuer di seetaat mënoo continuer di seetaat te loolu dafa ciy am léeg-léeg léeg-léeg nit dikk ne ma man dafa am koo xam ne dañoo waxante woon ba kenn ku nekk joxe sa kàddu léegi ma am keneen ku ma gis koo xam ne sama xel dafa nekkoon ci moom ndax su ma bàyyee lu jëkk la danaa ci am bàkkaar wala déet ma kay da nga ci am bàkkaar ndax yaa joxe woon sa kàddu kon bul gaaw a joxe sa kàddu teeylul ba bu fekkee ne ragal nga ne soo joxee sa kàddoo tam da ngay continuer di seetaat kon bul joxe sa kàddu del kooku ah mbir mi bàyyi noonu rek gis buñ ci jubloo bu fekkee yàlla dogal na mu war a dox suñ diggante alhamdulilah bu dogalee leneen it ñu xam ne loolu la yàlla dogal loolu boo ko defee joxoo kenn sa kàddu waaye nag d'accord ci jël décision ba kenn ku nekk jox sa moroom kàddu ba àggal ku góor ki continuer di seet moom itam ku jigéen ki di seet loolu ci boppam lañ ci bañ loolu moo tax soppuñu yàggal ak labat kon labat gi ku sañoon fu mu amee rek d'accord am na ci fi war a am fépp benn gàllankoor amut su boobaa ñi maye moo ci war a sës loolu mooy li jaadu moom lañ gën a sopp beneen laaj mi ngi laaj nee na dañoo seetantal ci fan yi ne école tubaab yi maanaam école yi ñu nekk dafa bëri lu ci nit ñi di daanu ay njagas yi maanaam di daanu rab te nee na loolu nemmeeku nañ ko sax ci benn école bu nekk Tamba ci fan yu néew mu ne nag foofu daf lay nii day sàkku ci yow lan nga leen di jox yóbbal ci lu mel noonu loo leen ciy ñaax ak loo leen ciy dénk. am naa xew ci école yi nag ay nit di xëm wala yu mel noonu loolu man ci sama jëmm bopp man mënuma ko analyser ci wàllu santé xëy na ñiy gëstu ci wàllu santé ñoo ko. ñoo ko mën a gëstu ba xam lii lan moo ko waral lan moo ko waral loolu du sama fànn man wàllu wér gi yaram waaye li ma xam daal mooy yenn kàddu yi may dégg ñi di ko wax loola moom demewul noonu mosoon nañ cee def benn xutba ci ba mbir ma gën a tàng ndax dafa am lenn ci doomu aadama yi ñoo xam ne dañoo defe ne loolu ñi muuruwul ñoom la ñuy mbugale loolu moo leen dal wala yu mel noonu moo leen di dal waaye fekk du loolu nag borom bi tabaraka wa taala digeewul ne ku muuruwul da ngay da ngay da ngay xam wala jinne yi dañuy ñëw sa kaw wala yu mel noonu déedéet demewul noonu su fekkoon ne lu demee noonu la kon nit ñëpp danañ gaaw muuru ji te fekk la leen di tax muuru du mooy gëm yàlla waaye pour mucc ci jinne yi moo tax ñu di ko def te su boobaa muraay nga du doon bu am njariñ borom bi tabaraka wa taala ak wooteem ci diine terewuñ ko ci kaw ne kaay wuy si boo ko defut eh, dara dara jinne dana la dal ci sa kaw wala gaynde dana la fàdd wala nangam da laaw boo dugg ci lislaam ndax su boobaa booy dugg ci lislaam la la ci tax a dugal du ngëm lislaam dafa bëgg nga am conviction ci sa xol gëm am yaqiin ci lii ngay wuy si sa xel dal ci nga gëmal ko sa bopp tànnal ko sa bopp ñëw nekk ci loolu di ko dund ndax su loolu amul doo ci dëgër loolu mooy tax nga dëgër waaye su fekkee da ngaa daw rek ñëw làqu ci lislaam làqu ci muuraay parce que naa mucc ci jinne yeeg seytaane yi naa mucc ci nangam wala nga defe ne diine ji ak léemaay la goo xam ne boo xëyee julli suba mu doon sa léemaay bu timisee nga julli suba mu doonaat léemaayu ngoon gi ci am loolu ci diine lislaam kooku ak seegut kooku moom ak seegut diine lislaam dañ koo war a gëme gëmin woo xam ne santaane suñu borom la mu sant ma ko may ab jaamam ma war koo def li fee maa ngi dund ànd ak sama xel ba coro muy dañoo demaan ba ne képp koo xam ne muuru na jënd dana ko fàdd sax jullit bi gëm yàlla moom day muuru na ko jënd fàdd wala gaynde lekk ko wala lu mën a xew waaye li santaane suñu borom tabaraka wa taala la ci laa fas yéene faat wallahu taala alam barakallahu fiikum kii mu ne waajur boo xamante ni dafay tere doomam bu jigéen mu muuru ak jaamu yàlla ci ni ko sunna jàngale comme buy jullit teg loxoom ci dënnam ana moom lu ko war digganteem ak waajur boobu. alhamdulilah ki nga xam ne yàlla da ko baaxee doomam ju jigéen di muuru di ji ma topp sunna ci ay julleem ak ay jaamu yàlla mu di ko ko tere kooka niñ koy waxe fayul naar ba xorom sa ay doomu aadama yu bari ci kaw suuf tey moo xam ay góor lañ wala ay jigéen ñi ngi doon xemmem ak neexoon yàlla may leen doom mayu leen ko am ñeneen ñoo xam ne yàlla may na leen jaboot goo xam ne ñépp ñu dëng lañ ci càggante lañuy ñuy fanaan bu ñu yendoo ci kaso bu ëllëgee ci bee la fanaan bu ëllëgee toroxte yaa ngi ci pénc mi ñi doon wax noonu ak a neexoon ñu am doom ju jub dem bay wax sax ne ah man de doom yi ma am bañoon am ay doom moo ko gën ci man kooku su xoolee ñooñu xool borom bi tabaraka wa moom may ko doom joo xam ne moom moo waroon a sonn ci di ko yar di yor ab yar di ko dóor ne ko kaay julli ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doom ji kat bu xasee am fukki at bu nanguwut a julli sañ nga koo dóor moo waroon a yor bu yar di ko dóor ci julli wala di ko dóor ci ne tey nga topp sunna far yooyu yëpp fekku ko ca moom mu wëlbatiku doom ji di defal boppam noonu mu di ko ko tere kooku mi ngi ci danger boo xam ne su xamee loolu muy def ni mu réyee dana ci gaaw a dellu gannaaw dana ci gaaw a tuub dana gaaw a dellu ci suñu borom tabaraka wa taala dana gaaw a lu doomam jooji ndax doomam jooji ku baax la ci këram ak leer la ci këram tawfiqi sunu borom tabaraka wa ci këram la kon nag mu wëlbati ko taxaw di tere doomam jooju mu dund sunna ci kër gi kooku mu ngi def loo xam ne lu dangereux la ci lislaam su xamee xaq yàlla ci moom ak yàlla mooy kan ci moom ak lan la yoreel boromam moom muy wëlbatiku di taxaw bi wax kàdd yu mel noonu jëmale ko ci doomam joo xam ne ci kaw topp yàllaa ko yonentam rek la koy waxee kooku jàpp naa ne bu tuubut fay ba mu séentu musiba mu réeréy moo xam ne ci kawam la jëm si ci àdduna ak ca àllaaxira loolu ak laaye biir la goo xam ne gu jëm ci waajur way tere doomam mu dund sunna la weneen laaye biir wi ci des wala geneen laaye biir gi ci des jëm ci doom ji mooy na nëmuñ na te xam ne jullit yi jëkk ya ci seenu dund lislaam lu ne te ba tey ay jullite ngi daj lu nekk ci ay bërëb bu ko yàlla baaxee nag ba muy dund yàlla gindi ko mu jaar ci siraatul mustaqim di topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jaamu yàlla am lu ca mën a tegu ci boppam na ko muñ waaye ci jamono yi muy muñ na rafetal ay jikkoom digganteem ak parents yi ndax lislaam waxu la ne boo xasee muuru wala boo xasee jàpp ci sa diine na nga daal di doyadal képp ku jàppul ci diine donte du say donte say waajur la déedéet bi nga jàppee ci diine danga leen war a gën a fonk dañoo war a gis ci say jikko loo xam ne ñoom gisuñu ko ci woon bu jëkk ñaa kii kat nii mu soppee col mi ci bitti nga xam ne da daan def yaramu neen tey mi ngi sol lu jot noonu la jikkoom yi soppi koo nam reewe woon tey dafa yaru nim ñàkkee woon teggin tey dafa ami teggin niim daan kaweele baatam di yuuxu ci kawi waajuram tey buy wax ak ñoom ndànk lay wax ak ñoom ñoom boo meree tey sax boo jëm ci kawam ah du la tontu kon liñ koy laaj biir mooy melokaan boobu na ji góor góorgóorlu lépp comme doon lu rafet ni muraay gi doone lu jaadu ci lislaam na jikko yi doon lu jaadu buñ ko doon xas wala ñu koy dóor sax bu mu tontu waajuram bu mu tontu yaayam bu mu tontu papaam na wax rek ne ah lii day ndigalul yàlla la akub tam ma fas ci yéene nekk ba keroog may faas doy na sëkk tont doy na sëkk tont su demalee boppam ba xam ne kii caaxaanut ci li muy def kooku moom mooy dellu si boppam mooy dellu sil boppam xam ne ah nun kat noo sàggan waaye kii moo nekk ci dëgg loolu nettali woon naa leen fi ay jamono xale bu jigéen boo xam ne lu mel noonu gaaroon na ko digganteem ak waajur waajur wi àggoon na ci baayam àggoon na ci su yoree kol di ko muuroo day ñëw dindee ko ci bopp bi xotti ko sax sànni xale bi du ko tont day dem wutaat dara rek teg ci boppam day taxawal di julli mu jóge ko gannaaw ba mat ko mu daanu léeg-léeg mu di ko dóor en tant que jullit waaye waa ji ci boppam moo dem ba tuub di ko nettalil boppam te li ko tax a tuub nee na damaa jekk ba guddi ma seen néegam xale bu jigéen bi néeg bi am luy tàkk ci biir mu ñëw taxaw ci fenêtre bi gis ko mu taxaw di julli di jooy ci guddi gi moom jafe nee na nag sama xol foofu am na lu yëngu ma ne ah man de li may def xaw ko xale bii daal kii daal li mu nekk mooy dëgg ndax li mu ko jaral ak lii nu koy won ni mu ko ñàkk a yëgee daal nun ñi noo nekk ci erreur nee na ci ëllëg sa damaa dem ca marché bi jënd yére yu doy ay muuraay lu nekk di ko jox ko jéggalu ko ca laa teggee it bàyyi lépp loo xam ne dafa jëm ci lu koy bundu ci këram kon borom bi tabaraka wa mi nga xam ne moo yor xol yi di ko wëlbati saa bu ko neexee mbokk maa ngi leen di nett léegi Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu jàmbaari lislaam jooju nga xam ne kero bi muy dugg ci lislaam jaaseem la yor ne dafa jóg pour rey Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te jantub bis boobu sowut lu dul mu doon ak jullit kon kooku mooy wane ne waajur wi lay dóor tey di la wax ne doo fi dunde sunna yàlla mën na koo baaxe ëllëg wala balaa jant fay bee sax mu wëlbatiku ngeen bokk lu ngeen di dund kon jullit bi foofa lay xoole du xool ne man fan lay jaar sax ba dëgër loolu weesu na ko léegi waaye fi muy xool mooy kii di ma bund xataal fan lay jaar moom ba mu wëlbatiku kon liggéey la boo xam ne liggéey bu rëy la jigéen ji góorlu ci diineem faw mu yor ci ak muñ muñ goo xam ne day mel ni muñu doj waaye boole ko nag akuk lewetaay nag ngoo xam ne du ànd ak xuloo du ànd ak werante kàddu gu ñaaw duutu génn ci làmmiñam parce que diineem loolu la ko digal yàlla na borom bi jàppandal loolu mu doon mu dellu keneen dellu laaj ne yan dénkaane ngay jox jigéenu jullit bi nga xam ne dafa bëgg jaamu yàlla tegu ci diineem ak jàng ak yeggali ak ak njàngam ci université bi wala ci école bi boole ko jaamu yàlla ki nga xam ne dafa bëgg a boole jàng diineem nag ak jaamum boromam jaamu boromam ci xam-xam jaamu ko ci pas-pasam jaamu ko ci wàllu diineen eh, mbir mi dafa dellu ci mbirum tawfiq ak ñaan suñu borom tabaraka wa taala tawfiq akub akub ndax liggéey bu metti la mooy nit ki bëgg jàngal àddunaam jagal ko itam ba mu tegu ci yoon bëgg baaxal àllaaxiraam yitam ba mu tegu ci yoon waaye gannaaw bu ñaan tawfiq jàllee mbirum organisé la itam wàllu waxtu wi sa waxtu wi ngay dund il faut nga organiser ko teg ko ci anam goo xam ne lenn lu ne da koy jox àqam njàngu école bi jox ko àqam ji nga xam ne moom la laaj fexeel ba yow bi nga xam ne da ngaa xas jëndiku bay góorgóorlu ci diine fu résultat yi génne yow yaa ci gën le loolu moo jaadu waaye fexeel ba sa wàllu diine itam nga jox ko xàq jëm yeyoo ah responsabilité bu rëy boobu nag ku ko bëgg a gàddu ba koo yan sa bopp il faut nga yëg ne waxtu wi nga am lu cher la waxtu faw nga organiser ko lenn lu nekk nga xam bis bi lan nga ci war a def li ko tàmbalee ca suba ba ngay yeew jullee boo fajar ba ba ngay julli fajar ba keroog ngay dem di tëriwaat foofu organisation war na fee nekk boo xam ne wàllu école bi war naa génn wàllu diine ji génn wàllu doomu aadama ji génn su loolu amut rek lii day jàll lee du jàll wala boo yeexee sax lépp ànd sooxe te loolu loolu moom jaaduwut ci ab jullit boo xam ne dafa jël engagement dund dund diineem léppam moo war a jëm kanam lépp nag problème waxtu rek la waxtu léeg-léeg lu bari noonu suñuy waxtu dan cay dugal lu ca bokkut ba noppi génne ca lu ca bokk génn lu ci bokk ak dugal lu ci bokkut loolu fu mu amee rek njaaxum daal di am wala jël wàllu nit ki jox ko kee jël wàllu kee jox ko kee fexeel ba njàngum école mi nga wutal ko ci waxtu loo xam ne doy na sëkk waaye sa njàngum diine ak jaamu sa borom fexeel ba wutal ko ci waxtu loo xam ne lu doy sëkk la loolu su fekkee def nga ko organisation boobu nga fexe ba tàmmal ko say cër ba noonu ngay doxe jàpp naa ne kon duutoo am problème mu ñaar yooyu nan laa leen di boolee waaye lu bare bari nag ci am solo ci nit ñi di def xaj nañ xaj na ci biir wax bi mën na ci am place kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax. keneen laaj ne ndax ci wàllu déggal ki nga xam ne am na boroom kër yi pap waajuram yi la war a gën a déggal wala boroom këram la war a gën a déggal. jigéen ji nga xam ne dafa xas dem ba ci yaroon na ci kër këri waajuram nag ba nekk kër jëkkëram. ñu jébbal ko jëkkër joo xam ne ku ko ku leen doy la doy lislaam ñu jox ko ko lislaam daf koo digal ne su boobaa nay déglu jëkkëram nay déglu borom këram kon ay ndigalam lay déglu jamono yi muy déglu ndigal yooyu topp yàlla lay def ndax borom bi tabaraka wa moo ne jépp jigéen joo xam ne matale na ak julleem matal wooru weeru kooram di déglu ndigali jëkkëram di def lim koy tere di bàyyi di def koy digal di bàyyi lim koy tere nee na kooku dañ koy ubbil ay bunt ci àjjana mu tànn bu ko ci neex mu dugg kon topp ndigali jëkkër ji dafa doon loo xam ne ndigalu sunu borom tabaraka wa la waaye ndigalu jëkkër jooju moom itam dañ koo tënk ci kaw mu doon loo xam ne dafay dëppook li yàlla digle dafay dëppoog ndigalu sunu borom tabaraka wa taala maanaam jëkkër ji du ne ah yow kat dañ laa digal nga topp ma lu ma neex laa lay digal déedéet daf koy digal lu dëppoog li nga xam ne moom la lislaam digle su koy tere mu tere ko loo xam ne moom la lislaam tere kon ñu bokk dund ci lislaam loolu lañ bëgg ñoom ñaar ànd ak ne dëgg la jëkkër ji moo yore ndigle ak tere waaye jabar ji ci boppam it ay xalaatam ci biir kër gi lu dox la su gisoon jëkkër ji jàdd sañ na ko ne dangaa jàdd lii lu mel nii kenn du ko def defal lii nangam ak nangam ak nangam sa teg ko ci kaw diine kon dundin wu mel noonu moo ci biir kër gi ci diggante ñaari way dencante yi waaye nag foofu ginnaaw mi ngi ci kër jëkkëram ak xëccoo amu fi guñ naan ndax day topp jëkkëram wala day topp ay waajuram déedéet day topp jëkkëram loo moom ak xam moo jiitu ci àq yépp ci jamono yooya su fekkee werante dafa am ci seen diggante nag ci diggante jëkkër ji ak seen waajur ak waajuram yi ñi xool loola lu mu doon ndax mën naa doon loo xam ne xëy na waajur yi ñoo am dëgg foofa mën naa doon loo xam ne jëkkër ji moo am dëgg foofa kon mënuñoo jox benn àtte boo xam ne rek dañ naan day topp waajuram yi faw lu ñu wax rek mu def ko donte jëkkër ji waxut loola wala ñu ne day topp jëkkër ji faw ba parent yi lu ñu wax du amati solo déedéet mën ñoo wax loo xam ne lu am solo la am dëgg ci kaw jëkkëram jëkkër it mën naa am dëgg ci kaw ay parents wallahu taala alam keneen laaj ne lan la islam wax ci li xew léegi muy piercing mooy di bënn ay fenn ci sa bopp teg ci ay jaaro ak tatouage yi ñuy def di dessiner seen kaw ci seen kaw yi kii ndax loolu lu ci islam jàngale am na yi ñu xewal nag léegi di ko def muy eh, bënn ay bakkan nag rëdd ci kaw yaram ak moo xam mbind lañ koy def moo xam am na ñoo xam sax jéggi nañ bind waaye dañoo dem ba di ko lakk eh, ay mbir la yoo xam ne bokkut ci aaday jullit xam nga lislaam dëgg la aada jum mën a doon am na benn tënk bu ci lislaam di wax mooy su fekkee ne aada bu rafet la lislaam da koy bàyyi mu jàll su dee aada bu ñaaw mu tere ko su dee aada boo xam ne rafetul ñaawul nag nga xam ne askan wa ko moom ñoom lañuy laaj luñ ci jublu suñ ko firee mu doon lu rafet lislaam ne baax na suñ ko firee mu doon lu ñaaw lislaam ne kon loolu baaxut dafa am nag yoo xam ne moom bu ñu wax ne dañ koy firilu ndax firiwul dara maanaam ñu laajoon askan wi tey seen yaram bii ngeen di jël di ci dessin ay ay jiit ak ay jaan ak ay yëf yu fan yu mel noonu lu ngeen ci jublu mënuñu laa wax lu weesu ne gis nañ kenn ku koy def rek ñu def ko su boobaa nag ginnaaw ki ngay roy te da ngaa gis mu di ko def nga koy def kooka du jullit nekkul ci sa diine yorul mbaax boo xam ne boo ko war a royee la su boobaa lislaam da lay wax taxawal loolu dañ koy tere maanaam su boobaa loolu dañ koy tere kon yi ñuy rëdd ca yaram ya moom bokkul ak bën-bën yi nga xam ne mooy nekk ci nopp yi wala mu nekk ci bakkan yi su fekkee bën-bënu bakkan bi xeet wi koy def seen aada seen aada mooy loolu dafa rafet ci ñoom lislaam du leen ko tere waaye nag lu mel ne le moom amuñu fii ci Afrique wenn xeet woo xam ne même ku dul jullit sax ci xeeti Afrique koo xam ne baaxoo nga di defee lu mel noonu ci sa yaram loolu dafa amul ci sun aada noonu kon aada ji royee ñeneen ñi ñu ko roy ñan la ñu dul jullit foofu la jóge ñëw américain yëpp tubaab yi ñoom ñoom lañ xame loolu te loolu doonul sun aada doonul sun diine kon jullit bi du dagan ci moom mu jëfandikoo ko wallahu aalam waaw kii nag ne bu fekkente ni sunna dafa jàngale ni boo gisee jullit boo bëgg nanga ko dama laa bëgg te yàlla tax mu ne ndax loolu jigéenu jullit dana ko wax góoru jullit mu rax ci dolli ne ndax góoru góor wala jigéenu jullit kenn ci ñoom sañ naa wax keneen ki dama laa namm ndax li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ab jullit bu gisee mbokk jullitam te fekk daf koo bëgg na ko ko yëgal ndax loolu day dem ba dugg ci diggante jigéeni jàmbur ak góor goo xam ne jàmbur la ci moom boroom xam-xam yi li ñu ubbee foofu mooy duggul foofu ak siwul foofu lu tax mooy lislaam dafa am bunt bu am importance ñu koy tudde saddu zaraa mooy bépp fenêtre boo xam ne na mën na caa jaare rek boobu dañu koy tëj loolu lislaam daf ko maye dëgg la lii lislaam néewul defal néewul itam bul def waaye xool nañ gis ne fenêtre la boo xam ne bunt la boo xam ne mënees na cee jaare def loo xam ne lu jaaruwut la kooku euh, boobu fenêtre lislaam nee na nañ ko tëj xam nga góor guy dox ba mu yàgg jigéen ne ko eh mu taxaw mu ne ko dama laa bëgg ngir yàlla ah loolu su demee ba bari nag ba tasaaroo ci société bi fu ñu toll ñu ala kulli xaal lu mel noonu moom la chaque ne fit na mën na cee juddoo waxuma la nag kàddu bi mu jëfandikoo léegi ma googu moom daganut maanaam dama la nam moom bis ko wax kooku moom kooku moom du waxiin parce que parce que kooku lu lu rëy rëy la nammeel ci wolof su fekkee ki koy wax ku dégg wolof la dafa am lu jiitu woon dafa am lu jiitu woon seen diggante euh, moo xam ci nekkin la moo xam ak jaxasoo la moo xam lu mu mën a doon loola dem na ba gëj seen diggante nga ne ko ah, yow doy na moon naa la kon lu mel noonu dox diggante diggante góoru jàmbur ak jigéenu jàmbur loolu du fa dox kooku mën naa dox diggante jëkkër jabar mën naa dox diggante baay ak doom mën naa dox diggante yaay ak doomam waaye nag ab jàmbur akub jàmbur moom loolu du jaadu muy dox seen diggante wallahu taala alam. xale ci sax kii mi ngi laaj ne moom mi ngi laaj eh, mu ne iqaamatul xujja ndax dañ koy defal ki nga xamante ni dañ dafa wax ni man maay yàlla ki wax ni mooy yàlla ndax dañ ko war a mun a defal iqaamatul xujja ci wax jooju alhamdulilah eh, jëmm ji nga xam ne day wax ne moom mooy yàlla kooku laa shakk ne moom loolu mu wax kéefër la maanaam dafay génne nit ci lislaam mu def nag ndax dañ koy àtte moom ne génn na diine wala déet génne diine ci nit génne diine àtte moo koy defal nit maanaam qaadi mooy àtte nit ne kii génne nañ ko ci diine lislaam ngir nangam ak nangam ak nangam loolu balaa am enquête lay am bo day am diggante kay àtte ak diggante ci wax lii su doon lislaam a taxaw tey su nit demee ba kàddu kéefër génne ci olàmmiñam duñ daal di ne rek ab yéefër la waaye dañ naan wax na waxi yéefër léegi nañ ko yóbbu ñu àtte ko buñ ko indee ba di ko àttee li muy jëkk a seet mooy ndax moom moo wax wax ji su del siwaatee ne waaw man maa ko wax la muy seetaat mooy ndax xel la àndal bi mu koy wax su saxalee ne moom xelam la àndal bi muy wax loola te it jamono yi mu koy wax kenn forcé wu ko ci it xam na lim wax xam na li muy wax dëgg-dëgg mooy lan su boobaa lay àtte ni kii ab yéefar la dadi nag nit ki dana wax kàddu goo xam ne kàddu kéefër la ñu ne ah ci de lim wax kéefër la waaye nag loolu bokkul ak nga ne diw sàngam de ak yéefar la suñ demee nag ba am ay xaraayin yu wóor ne moom mii ci jëmmi boppam maanaam am nañ ay tegtal yuy wane moom mii li mu wax xam na ko man en tant benn nit benn individu gis naa nit koo xam ne dem na ba mu wóor ma ne kii li mu wax xam na lu mu doon wóor na ko ne kéefër la ba noppi mu wax wax ji mu wax su boobaa man danaa ko àtte sama àtte bopp àtte bopp bi du mooy ma wër nit ñi ne leen diw sàngam ab yéefar la parce que duma ma du ma ab juge yoruma yoruma pouvoir waaye lépp lu ñuy jëflanteeg ab yéefar noonu laay jëflanteeg moom duma ma julli ci gannaawam su ma nee ne asalaamaaleykum dama ne ko waaleykum salaam leneen laa koy wax ne ñuy jëflante ko ab yéefar man noonu laay jëflanteeg moom parce que dem naa ba am firnde ak yaqiin ju may jox ne ab yéefar la du ma déclaré nag sama atte boobu du wax nit ñi ne leen diw sàngam ab yéefar la waaye sama digganteeg moom loolu laay jëflanteeg moom ndax loolu la ma sama diine teg bu boobaa su boobaa it nag diine tegu la ngay wër fu ne nga dem fan diw sàngam yéefar la waaye nag kàddu kéefar la wax moom loolu sañ nga ko ci jamono yu nekk maanaam mbir la bunt la boo xam ne buntu pas-pas bu xaw xóot la ci buntu pas-pas yi yu mat a bàyyi xel la ñu xam ne àtte nit ne yéefar la loolu ka ko yore mooy kuy àtte ab àttekat ci lislaam moo ko sañ walla koo xam ne jullit yi dañuy dellu ci moom kooka te xam-xamam mate ko moo mën a dem ba àtte àtte bu mel noonu ci nit su ko defee jullit yi jàppee ko lu mel noonu loolu rek su boobaa mooy tudd iqaamatul xujja ci moom mooy question yooyu ñu koy laaj ak enquête bi. keneen di laaj mu ne lan la yàlla tëkkoo ki nga xam ni day déglu musique. déglu musique moom doy na jullit bi xam ne dafa xaraam lépp loo xam ne yàlla daf koo xaraamal ak lu mu mën a doon eh, jullit bi daf ko war a daw. lu tax mooy jullit bu nekk yaa ngi jéem a góorgóorlu di jaamu yàlla yaa ngi jéem a def lu baax lu xaraam loolu li mu ni mu mel mi ngi mel ne yaa ngi yoroon sa lu baax a baax loo xam ne da nga koo fonk ci waxtu wi nga koy fonk ak di ko raay ak di jël di xool di dencaat yaa ngi taal sawara mu di ko lakk yaa ngi taal sawara mu di ko lakk kon ñaawteef yooyu ak bàkkaar yooyu day lakk day lakk tuyaaba yi muy def loolu moo tax jullit bi lépp lu xaraam daf koy daw déglu musique li ci ñëw ci ay xadis yoo xam ne daf koy tere ak di ko ñaawal bari na lool doy na ci benn xadis bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne kiy déglu yu mel noonu yowmal qiyaam bu ñëwee dañuy jël beteex beteex mooy nga jël benn aluminium euh, togg ko baxal ko ba nga xam ne boo sottee day sottiku ñu ne moom la ñuy jël di ko sotti ci nopp yi di ko sotti ci biir nopp yi kon loolu jullit bi su fekkee xam na lu mel noonu daf koy dawal boppam teel ak lu mu bari bari nag lu bari ak lu baax bokkut nit ñi léeg-léeg ñu ne ah waaw lii moom su fekkee ne dafa xaraam noonu kon fun jëm parce que ni mu baree waaw ni mu baree fexeel yow ba du ca bokk qul laa yastawi alxabis wa tayib walaw ajabaka kasratu alxabis loolu la suñ borom wax borom bi nee na lu baax ak lu bon duñ yem mukk donte li bon sax dafa dem ba bari lool donte li bon dafa dem ba bari la baaxoon démb rek mooy baax ba tey la bonoon démb mooy bon ba tey mooy bon itam ëllëg kon su baree ñu koy def fexeel ba yow nga doon kenn ci ñi ko dul def loolu moo lay mosal yow jullit keneen di laaj ne bu fekkente ni jigéen la bu ndax mën na sol lu gudd gudd mu wàcc fekk dafa jiital pantalon am naa sol pantalon ci jigéen lii xaraam mooy sol ko génnee ko wala mu sol ko eh, feeñal ko ci ñoo xam ne waruñu ko ji waaye bu ko neexoon mën naa sol lu ko neex ci biir ba noppi sol nag ay yéeréem yu jot ci kaw nga xam ne kum romb doo xam li nga sol lu mu doon loolu su ko defee dara nekku ci su nekkoon foo xam ne moo jëkkëram dong moo fa nekk it mu sol pantalon loolu dara newu ci seen diggante la ñoom ñaar li ñu bañ daal mooy bu mu ko sol ci mbedd mi moom di dox ak loo xam ne day fësal ay cëram waaye bu fekkoon ne ci biir la ko sol teg ci kawam nag ay mëlfaam ak yem war a teg ci kaw ba kenn du xam lu sol su boobaa lislaam moom nekkul di gëstu la nekk ci biir ak yu mel noonu alhamdulilah maa ngi fàttaliwaat li ma waxoon moo di su fekkee ni ci biir néegam la nekk moom jigéen sañ naa sol lu ko soob ginnaaw kenn gisu ko su dee génn nag bu mu feeñal loo xam ne lislaam daf koo xaraamal wallahu taala alam bismillah alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi ñaan yàlla fayal ñu yiw sunu sëriñ te dolli ko xam-xam yàlla gën ñu dëgëral ak moom ci njub ak mbaax ba karam la jeex moom yàlla may ñu ngërëmam am na laaj bu rotti bu xamante ne bi jaar nañ ci ci biir sunu muhaadara jàpp naa ne dina jaadu ñu am leneen luñ ci tënkaat ndax fiq mooy demee noonu bari na masala fiq nga fekk ci ay wax yu bari kon bu ñaari wax yu safaanoo mun na jaxase ci xelum dong bu ndaw am na ku laajoon yére jigéen jigéen di sol yére góor bu mel ne pantalon ñoo ngi sukkandikoon ci fatwa bu xam ne bii dama sikki sàkka ndax ci lu nit daay ma laa ko jële waaye jële naa ko ci naam wax na jigéen même bu fekkoonte ne dafa nekk ak mahramam wala mu nekk ak jëkkëram wala même moom kenn mu nekkoon ci néeg xaraam na muy sol yére góor même bu ko doon sol ci du ko natt sax di ko natt rek di xam ne mu toll ci moom sax dañ ko koy tere kon bu ñu laajee cheikh mu wax ci lim ci wax léegi te bu bamtuwaat euh, mën nañ ko bañ a jàppee ak juuyoo ci wala boog ñu bàyyi sax gën a jox teex mu gën ñu tënkal nu muy dajalee ñaari kàddu yi defe naa moo gën a yell ci man may toog bi jàngalewaat ci ronam sallallahu alayhi bismillah jazakallahu xayran euh, dafa am ñaari xool yi yoo xam ne dafa am ci wàllu yéere laa chaque na ay borom xam-xam yu mag a mag a mag masala bi muy wax nii juyoo nañ ci. Euh, fatwa bi mu leen ci jox wala wax ji mu leen ci wax sànq mooy waxi Cheikh Nasiruddin Albani moom dafa gis ne sol pantalon mot na xam dafa xaraam ci jigéen. xool ba mu ko jifee da ko dugale ci buntu xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa di waxee ne yàlla rëbb na jigéen joo xam ne day sol yére yi góor ak góor goo xam ne day sol yére jigéen yeneen di borom xam-xam yi nga xam ne nag dañoo gis ne santaloot sol ko ci jigéen day xaraam su fekkee ne daf ko feeñal ñu xóolu yumuñ ci côté nuru nuru lu góor waaye côté raflewu la maanaam li muy sol matut ñu ne kon su fekkee sol na ko teg yeneen yéreem ci kaw ba feeñut kooku mën naa dem ñu ne lu tax mënta dugg duggul ci nuru nurlu bi ñu ne dafa dem xam nga aada day soppi yére day soppi lu nekk waxin sax aada da koy soppi dafa dem ba pantalon ci ña koy sol góor ak jigéen ñoo ci yom léegi nekkatul corum góor nekkatul corum jigéen mi ngi mel ne eh, yeneen i yére yu bare bare bari yoo xam ne ñu koy sol tey par exemple buñ jëloon léegi wax wala Lagos ci suñ société li jëkk a dem ci xel mooy colum jigéen la waaye bu ko góor jëlee ñaw ko ñaw boo xam ne ñaw góor la kooku jël na yéeri jigéen ñaw ko col ñawin woo xam ne ñawinu góor la kon aada ji ci boppam mooy dem ba soppi fixé dara wane ni lii colum lii la ñu ne nag pantalon dem na ba colum góor la ak jigéen léegi comme ni nga xam ne doonatul colum yéefar ànd ak na fenn la sosoo woon ci béréb waaye dem na ba kenn moomatu ko wenn askan moom ko ñépp a koy sol boo dikkee Afrique fekk ko fa boo demee Chine fekk ko fa nga dem Japon wala nga dem tenk wala nga dem sow wala foo mën a dem fekk ñu sol pantalon kon mënatunoo wax ne nurul nuru lu tubaab yi la ànd ak ne ca ñoom la sosoo woon parce que aada dem na ba soppi ko noonu mu ko soppee ba aw xeet moomatu ko ñu ne noonu la ko soppee itam ba góor moomatu ko jigéen moomatu ko kon lu fa def mooy yëg ne mënee su ko sol di ko génne man na bi ma xoolee ñaari analyse yooyu wax dëgg yàlla ci diggante kii bi ci laa gisee ne lii moo gën a moo gën a nuru lu gën a dëgër moo tax euh, loolu ma ubbee ko ci ci jataay bi ak yeneen i jataay waaye teewut li mu waxit nag lan wax noonu lu dëgër la loo xam ne ay boroomi xam-xam wax nañu ko wallahu taala alam euh, jigéen joo xam ne sol na ko teg ci yéeréem ba mu fees dell kenn xamul lu mu sol ca biir muy dem kooka def na loo xam ne lu wér la koo xam ne xelam dalu ci ci mut la xanit mu bañ koo sol faf ca biir rek ci bittee digganteem ak jëkkëram ak yooyu yëpp it ba tey def na loo xam ne mooy la gën a dal xel wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina eh, kenn ngi nii di laaj ndax jigéen mu jël kawaram daal di koy tent maanaam fuddoon ko wala def ci beneen i mbir ba mu changé couleur bi wala mu gën a ñuul bopp ndax loolu lu mu ne ne la soppi couleur kaw ci jigéen ginnaaw karawam itam du feeñ du génn ak moom ci mbedd du ko feeñal lépp loo xam ne xeetu taar la lépp loo xam ne xeetu taar la diggante jigéen ak jëkkëram te fekk xeetu taar woowu la muy jëfandikoo doonut lu sobewu doonut lu baaxul ci wér gi yaram ñaari tënk yooyu la am su boobaa loolu day daggan kon couleur kawar ak xeet yu mel noonu yëpp ginnaaw digganteem ak jëkkëram la lam koy defee su sobewu wut te lam cay def doonut lu baaxul ci wér gi yaram su boobaa day daggan digganteem ak borom këram. kii nag moom nee na lan mooy maanaam laaya biir ñi ngeen ni la laaya biir ci tënk bu motale ci wàllu labat ak nañ koy jaarale ba mu tegu ci yoon waaw tënk bu leen di mën a dimbali ñu mën cee jaar ba muy tegu ci yoon am na laaya biir gi ñuy jox mbokk yi nag ci seen diggante ak lu aju ci wàllu labat moo di bunt la boo xam ne bu bari ay fitna la kii labat ñu xam ne li ci jëkk ab jaambor la digganteem jigéen ji ab jaambor la ci moom lislaam may na ko ci moom loo xam ne mayu ko woon ab jàmbur loolu mooy lan mooy sañ naa toog ak moom xool ko sañ naa toog ak moom xool ko ci lu dul wéetaay xool boobu nag xool xoolaat ba xam dana gis ci moom lu tax mu bëgg ko la am déet ku góor ki sañ na ko ku jigéen ki sañ na ko kon sañ nañoo xoolante ñaareelu tomb bi moo di ñu xam ne jëmmi labat ci boppam dafa am yoon moo di ci dox ba gis jigéen joo xam ne yàlla dogal na mu bëgg ko te moom jël na décision pour bëgg a takk soxna bala moo def dara na jëkk gisanteeg waajuram ba noppi waaye ay xale kese duñ daje fi béréb di fasal seeni bopp ay ngoro ba noppi door ko yëgal seeni parents loolu jaaduwut na giseeg waajur wa ne ko man day diw sa doom sama xel a ci moom su ko ubbilee buntu ne loolu mën naa nekk mu seet beneen jéego ba mooy wax xale bi ci boppam laaj ko xalaatam ci moom laaj boobu xalaat kooku la ñuy tuddee xool bi nga xam ne moom la labat maye bis bu ñu ko ko maye sañ naa ñëw toog ndaw si toog càmmiñam toog wala baayam ñu ne ko kii kat lañ lay wax su ko xoolee ba àggal bu fa jógee baayam laaj ko loo gis ci moom lu ci sa xalaat su ne ko ah, waaw kii de baax na man d'accord naa ci su ko defee waxtaan wa diggante parents yi lay daal di jaar ba keroog ñu fas sëy ba noonu mooy yoon wi gën ci yoonu labat waaye labat yi xew nit toog ci écran keneen toog ci beneen ñi jokkalerante ay leetar ak ay ay ay ay Skype ak di gisanteeg dama laa bëgg a gis ak dama bëgg nangam nangam waxtaan yoo xam ne yàlla moo xam fu mu yem ay lettres yi SMS yu dul jeex yooyu yépp ay fitna lay ubbi tayit sëy buñ tekkee noonu yàlla moo xam ndax sëy bu normal lay doonam ndéet ndax ki fexe woon ba turwe benn waay wala senn su ndaw te fekk da ko jaare ci internet wala mu jaare ko ci SMS wala yu mel noonu bul am dalu xel ci ne bi mu ñëwee ba ci këram bay sëy sax mu ngi continuer di yónneewaat yeneen i SMS ak yeneen i kii yàlla rek moo xam ndax bunt bu ubbi ko la te ubbi ubbiwut kon sëy yi nañ góorgóorlu ba muy jaare ci yeneen anam nag yu bokkut ak yooyu wallahu taala aalam di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu dolli ñu tawfiq te dolli leen ko fay leen tuyaaba ci seen activités yi jëriñ leen ci wallahu taala aalam alhamdulilah alhamdulilah hamdan kasiran tayiban mubarakan fii lii moom mooy ñu sant borom subhanahu wa taala ci xéewal bi ñu xéewale tey ci jataay bi ñaan yàlla mu boole ko ci jataay yi nga xam ni daf ci bégee da ci fayee doomu aadama yi wala jurit ñi aljanna laahi ñu ngi ñaan yàlla an yaxfada cheikhana Mouhamad Ahmad Lo wa kadalika cheikhana Aboubacar Seck ñaan yàlla mu sàmmal ñu leen bu baax a baax wéral leen may leen gudd fan ci suñ kanam ñu ñuy wan yoon yi wa an yumatti'ana fi fi ilmina ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala it liñ fi dégg mu jariñ ñu mu bañ a nekk dégg-dégg rek mais mu nekk dégg ko xam ni jëfe moo cay topp mu mel ni nag dañ ko sàkkoo woon ci moom xam na ak ñàkkub jotam ak ay wareef yu bari yu koy xaar ba tax na duñ ko fi mën a tënk xanaa kay comme ay ndongo lañu di ay doom waajur bu ñëwee bay dem dañu fiy bàyyil dara lu ñuy mën a bokkaale ci bu doon benn kàddu wala ñaari kàddu mu tëjee ko maanaam tase bi mu taseeg ñun tey te di ñaan bañ fee gëj bi la di ñaan nag loo leen am ci laaj ngeen koy bindee rek buñ taseeg moom mun ko koy jébbal. barakallahu fiikum waaw li ñuy dellu di ko dénkaat mbokk yi daal mooy lu mel nii moom dafa war a bari maanaam fexe leen ba baril baril lu mel nii na continuer na ngeen jéem a góorgóorlu comme ci ni ngeen tàmbalee liggéey bi parce que waxtu bi yàlla ci âge bi ngeen toll ak béréb bi ngeen nekk. ma góor góor lu ci diine loolu lu lu ama am solo la fexe ba mu sax nag mooy li am solo ndax euh, dog yoon wa léeg-léeg mu doon lu yomb waaye continuer nag ci yoon wa foofu la liggéey bu rëy bi nekk fastaqim kama umirt loolu la borom bi tabaraka wa taala wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu lu diis ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko yàlla ne saxal ci li nga nekk ni la ko yàlla digale kooku mooy ndigal bi gën a diis ci yàlla ndigal boo xam ne digal na ko ab yonentam alayhi salaatu loolu moo tax bi ko kenn ci saxaaba yi ne ah yow de yonent yàlla bi daa mel ne danga ngaa tàmbali nag di bëgg bi jaaw léegi daf ne shayyabat ni huudun wa axawaatuha abdullah ibn masud daf ne suuratu huud moo ko bi jaawal moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam abdullah ibn masud ne ah du suuratu huud lépp moo ko bi jaawal waaye fastaqim kama umirta wa taaba saxal ci lii la yàlla digal sax ci ba faw ba keroog ngay dee muy tolloog wax bu rabbaka xatta yatiyaka al yaqin nee na loolu moo diis ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bijjaawal ko kon dog yoon wi mën naa doon lu yomb waaye continuer ci mooy liggéey bu rëy bi kon sax leen ci seen diine jàpp leen ci jàpp leen ci jàng ko jàpp leen ci woote ci jàpp leen ci di def programme yu mel nii ndax am na njëriñ dana leen dolli xam-xam di leen dolli ab xame sax seen diggante ak seen moroom di leen dondali itam ak jot li goo xam ne seen diggante ñi ngeen di dundal dundandool ci gërëb bi la di leen laaya biir seen diggante ak ñi ngeen di dundal ci seen béréb bi ngeen nekk muy seen école wala fa ngeen dëkk na doon na doon yërmaande na doon wane comportement bu rafet na doon wane jikko yu rafet ndax yàlla xam ne ne lislaam ak sunna lu rafet la soo gisee benn xolu doomu aadama bu ci am naq lu koy naqari wala lu metti ci moom nit a ko woon comportement bu mel noonu te fekk mu nekk ci lislaam wala mu fekk mu nekk ci sunna mu jàpp ne loola moo mel nii tax mu sori ko waaye su ñu wane woon lislaam ca nam mel dëgg dëgg dëgg wane sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca nam mel dëgg dëgg ñu wane ko ci pas-pas wane ko ci jaamu yàlla wane ko ci jikko yi kon woote bu gaaw a gaaw lay doon boo xam ne daanaka wax sax bi ci ànd yal na borom bi jàppale loolu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain